CFA ah, ay euro ko donor. mu kaaw ci Sénégal bii def na 200 waaye Sénégal fii xam nga man yi ma gis dafa bëri mooy ni ma yàgg a jaxasool moo bëri. Mhm. dama téye sama làmmiñ nag. Mhm. ndax risim bi jeex na su ma neexee wax lu ma neex xaalisu senegal ñu génne ko ndax xaalis bi ñu ñëpp ñoo ko moom. Mhm. nekkul lu ma moom man mii suñ ma gëstu ba xam ne am naa ci wala téye naa ci wala denc naa ci nañ ma yës yoonal ma. ñu génn ko ñëpp am jàmm ku ne mën cee tedd mhm. kon man li ma bëgg a comprendre foofu moom mooy sëñ bi euh, ñoom ak lu ñu mënti def tam pour dem ci sëriñ si noppiloo Bassirou Diomaye Faye wala noppiloo Ousmane Sonko parce que comme ni nga ko waxee léegi ni am na ci loo xam ne mën nañu fexe ba li fay ah. buñ ko mënoon am na sëriñ soo xam ne nii mën nañ koo mën nañ leen ko defal waaw ah, bu baax a baax a baax si kuut si kuut man Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko mën naa leen mën naa leen noppiloo ndax 2021 ba léegi maa ngi dugg ci rawaandu Bassirou Diomaye Faye ak ak rawaandu Ousmane Sonko rawaandu nga jàpp ba téyeeku na foo ko jaar ma nga gis nga mu ngi mel ne oto booy dawal mm-hmm. bi mm-hmm. soo neexee nga tourné mm-hmm. bu neexee nga arrière bu neexee sax nga dem mbëkk garab xam nga yaa ko téye yaa téye baar bi waaye man ma toog ci kanam te téyewu baar bi mënuma ko dañ dégg waaye 2021 ba ma dalee xeexal Ousmane Sonko ak Diomaye Faye ak mboolem ku nekk ci parti bi lu ma neex mën naa ko jo def mën naa ko fooyee waaye na fekk nga am permis ba pare. waaw surtout waaw waaw na fekk nga jubóo ceeb si am permis ba pare comme ni nga ko waxee xam nga te du ko def sax nag du ma ko def noonu ma ko mënee nag xëy na am na keneen ak keneen keneen ku ko man ndax man du ma du ne du ma du ma du kenn xam-xamam. waaw waaw bokk loolu. xam na waaw li nga li nga wax noonu xam-xam. ma bañal kenn xam-xamam. Mhm. man xam naa keneen xamut kat xel ji foofu la nekk. weesu ko li ma xam xëy na am na keneen koo xam am na keneen ko xamut am na keneen keneen ko xamut mhm. ñi xam it danañ jàngal ñi xamut ñi xam danañ tolleeku ci ko xam si kuur mm-hmm. loolu mooy loolu loolu la mm-hmm. loolu mooy loolu la àdduna di doxee mais mais mais ban jàngat nga def par rapport ak euh, rapport yi ni mu tegat loowee attente yi yu Sénégal yi bari na lool te yaatu na lool mais aussi euh, yaakaar gi ñu wékk ci euh, gouvernement bu yees bi est-ce que yaakaar nga ne ab sëriñ mën na leen a malmené malmené dugg ci seen biir ba mën leen a noppiloo waaye itam téye gémmiñu sénégalais yëpp est-ce que loolu mën naa nekk ba alal ji ni ñu ko war a jotee di ñu bañ ko mën a jotee noonu. waaw ab sëriñ dëgg la wax nee mm-hmm. xam nga sëriñ ak sëriñ ci dafa bokkut dafa am sëriñ am. Mm-hmm. sëriñu triaax am sëriñu triyaa am. Mm-hmm. yaa ngi dégg. sëriñ nag mooy ki nga xam si da ko donn nekk ca nekk ca la ko war kooku. luñ ne la mënu ko rek mën Hmm. ndax dafa jubóog boromam dafa am ijaaba ci suñu borom. yaa ngi dégg. Hmm. dafa am xam si ne tey xam nga dañuy wax ne am na ñoo xam tey suñ borom dimbali na ñu ay jaamam Ahmadou. Hmm. tey suñu waxoon bis penc ba mu taxaw du taxaw. déedéet dama ay nit lañ comme yow. waaw ay xutbu lañ. ay wàllu lañ. yaa ngi dégg bu nit jëkkoon jaamu yàlla ba dee ñun suñ borom yóbbu di def lu bon di def ba faatu ñun suñu borom yóbbul ñëpp sawara mu yóbbu ñëpp sawara waaye bu ne suñu borom yóbbul ñëpp àjjana ñëpp dem àjjana yàlla may na loolu nit. si ngi dégg ndax lépp loo gis mu may ko rek doomu aadama la ko may. Mhm. moo xam nag ca melokaan ba mu ko ko mayee. Mhm. noonu la mën a maye nit koo xam si ne bu ko neexee tey bu subaat gannaaw suba Ousmane Sonko ak Diomaye Faye mhm. tojante ay ba ay ay bopp def-def la rek yomb na yaa ngi dégg waaye noonu la mën a maye tëj seen gémmiñ ñoom ñëpp ñu yor ñu yor ñu yor ñu yor dossier beeg ñi koy toppatoo ñi def lépp man ñu yor dossier bi su nga ma joxoon samay tur bu neex dootuñu ñepp laal dañ koy fàtte définitivement. mais patriotiquement ndax képp ku ñepp da nga am problème. patriotiquement est-ce que sa xalaatuma ko. ndax sama xol hmm. fa ma may woon fa ma may woon ma ma ma ma ma lekk ab xaalis lekk ger te su ma ko lekkoon dootuma xamante dara ndax ndax ndax ndax loolu dañu ko jàngal. Hmm. su ngeen lekkee lu leen lu ngeen lewut dootu leen ñaan lu nangu ci àdduna. jaay dëgg ndax ñu ko jàngal ñun sëtam yëpp. Hmm. yaa ngi dégg waaye proposition bu ne dégg naa ko 50 millions kër passeport diplomate def yëpp te boobu Ousmane ma dégg ko ci état Macky Sall ñu indil ma ko tegal ma ma ne sama kër kon su ma doon lekk loolu démb ak bëgg yam naa koy def tey ku bëgg tey ku ah. bëgg falu tey koo ah. xam ne bëgg na soo ko jox ko poste wala dara bu ñëwoon ci yow tey <laughs> loolu gën a yomb <laughs> ginnaaw bu mu yombee yàlla bu tedd bi taxaw tabaaraka wa taala ndax mu neex la suñu borom léegi bakkan bi war yàlla neex ah. waaye ministre wala directeur wala police ak douane ak lu mu mën di doon jël sama numéro mi dox mm-hmm. ñi ma ci seqal ñu bari xam nañ ko dañ mm-hmm. de mm-hmm. kon loolu yàlla may nañ xam-xam la mu bëwuñ ko nag ñoo gën a woyof xob yaa ngi dégg duñ tëju kenn mm-hmm. mosuma taxu sama kër yëmbal laa ma sa dëkk ndaka jekk fa ma ndaka jekk daa mi 2011 mm-hmm. ñu ñëw ci mm-hmm. ba tey ci ñi yor euh, ñi ñuy ci rapport yi euh, bari na ci ñoo xam ne ni aussi dañ doon séentu ci ñoom ñu luubal alalu askan wi jamono jii am nañu ay certitude wala sax ay information yi leer ne ñu ngi daw di làqu ci ginnaaw sëriñ si. maanaam boo demee ci kër sëriñ si fi ne nii ñu ngi ci seeni ginnaaw làqatu tëj seeni kër bàyyi fa seeni soxna jël seeni njaboot sax euh, yóbbu ñu daw tukki biti réew ñoom ñu dem ci kër sëriñ si tëdd ndax lewal xaalis boobu. waaw xam nga loolu sëriñ bu nangu muy sëriñu diine. ma mhm. bokk kër gi ma bokk muy kër sëñ Tuubaa kër maam Alaaji Maalik kër Baay sa kër Baay Laay sëriñ ba mu mën di doon. Mhm. ngay ngay nëbbu ab sàcckat sàcc nga yow. Mhm. te war nga sa maam waaw te war nga sa maam ndax sëriñ bu goree sëriñ bu goree. Hmm. la nga am judduwoo ca dalaa dab. Hmm. sëriñ Tuubaa ba muy liggéey liggéeyam bii amul benn sëtam bu topp ci gannaawam di ko ngabal ba la wala nga ne ko bu bindee nga tontu amul. Hmm. amul benn doomam boo xam ne si tey bi mu liggéey muy metti di daj lu ne nekkoo ci gannaawam. kon boo amee ngor. yaa ngi dégg sëriñ Tuubaa defal la loolu ay nit du sukk la ko raamal te gënoo leen. di la jox nga ngay jox bidi nga leen di ñaanal ñu la koy jox nga toog yor ay million nga tëju heure bu neex ngay génn yaa ngi dégg mm-hmm. dàqu leen kër mm-hmm. dàqu leen jabar dàqu leen looy nekk buñ toogee boo toogee koñ toog suuf ku ku gëmmatu la Sëñ Tuubaa defal ngay def leneen loo xam ci nëbb ay politiciens ngir ab xaalis war nga Sëñ Tuubaa mm-hmm. te booy dee di layoo moom turu sëñ gaa fa nekk nag ngir deret ja waaye ak sëriñ amatu fa loolu mooy lu wér loo xam ne si ne tey kër ga ma fa amoon ku mën dañu mën naa la jox baaraam nga dégg kon sëriñ si nga xam ne si ne dañuy nëbbu ñi nga xam si ne ay sàcc lañ ngir milliards yi ñu leen cee jox wala millions yi ñu leen jox wala kër gu ñu leen daggaloon ku ko defee it war nga sama am te yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko Sëriñ Tuubaa it bëgg ko Sëriñ Tuubaa ci jaamu yàlla la woote ci ngor la woote yaa ngi dégg Sëriñ Tuubaa du ñu daan indi xaalis bu bëri du ko jëriñoo day xool benn pax fatt ko ca daane fatt bunt rek lay jariñ mhm. fatt naa ko ko mhm. yaa ngi dégg mosu koo jariñoo kon ku bokk ci moom wala nga bokk gëneen kër li tax ma cité kër du wutul gëneen kër kër gi ma bokk laay cité suñu maa tudd gëneen kër dégg kon ku def loolu te ne ab sëriñ nga ay nit topp nañu sa gannaaw yaakaar nga Sëñ Tuubaa wala sëtub Sëñ Tuubaa nga wala seexub Sëñ Tuubaa nga déedéet Sëñ Tuubaa dafa wax ne nit ki nga xam si ne tey mooy ki bokk ci man jege ma mhm. bu deful la ma la ma bëgg Mm-hmm. Abdou Karim Touré ma xam sori na ma moom a gën a moom a a jege ko yow. nañ dégg. tur fa nekk rek ak ak ak deret mm-hmm. léegi euh, est-ce que loolu tam du indi diggante nguur gu bees gi ak seen diggante ak sëriñ si su fekkente ne nguur gi ñoom xam nañu ne am na sëriñ soo xam ne fim nekk nii. am na ay daw làq yu nekk ci seen ginnaaw maanaam ñoo xam ne dañu sàcc alal askan wi xam nañu ne rapport bi épinglé nañ leen ñu daw làq ci seen ginnaaw est-ce que nguur gi moom am nañu droit dem ci ginnaaw sëriñ boobu dem làqar ñi kafa làqatu. waaw xam nga xam nga xam nga yow soxna Thioro loolu. Mhm. Bassirou Diomaye Faye. Mhm. yal na yàlla defal ko suturaal ko mu ngi nekkum xelam. da ko wax ci discours am xam lu wax. Mhm. dafa wax ne képp koo xam ne luubal nga alalu Sénégal yi. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ñëwal ci sutura. Mm-hmm. xam sutura koo xam lu tax mu wax ko sëriñ see de. Mm-hmm. sëriñ si moo tax mu ne ñëwal ci sutura. ndax boo ñëwee ci sutura. biir sëriñ am nga ay taalibe kenn du la weer <coughs> bu dee làq nga nit nga ñëw ci sutura. waaye ñii nga xam si ni tey ñi ngi leen di wax ñi ngi leen di tudd. waaw ah? ñu épingle leen Sénégal yëpp leen xam. Sénégal yëpp leen xam. Sénégal yëpp xam ne rapport bi kii na leen. épingle na leen. Mame Mbaye Niang ñëpp xam ne rapport bi enquête pénal na ko Mamour Diallo yaa ngi dégg ak ñeneen ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba ci sama doom baay bi di nga ñoon épingle nekk mi mu ture dëgg la xaw ma dëgg yaa ngi dégg ñooñu ñu siiw nañ waaye sëriñ bi nga xam ne si ne tey ah donte bokkoon nga ak nguur wala laal nga ci bés bi dana la ñëwal ci sutura ndax sëriñ nga wala kilifa nga wala nit dama làqu ci yow ñëwal ci sutura ñu jox la ba pare mu dana nag boo paree ñu am lu ñu joxoon am lu la jox xanaa loolu neex na de loolu dafa neex waaw am loo xam ne faaw ma wax ci ndaxte yàgg naa sàcc nga kaay ma la waaw ba pare bu ma suturaal pare masal la dara ah. nga mën a dem man ko ma neex la dama saytu wala nga tëdd mu dee gor wala nga wut leneen a boo dee gor <laughs> am na loo xam ne dafa am na loo xam ne mën nañu see ñàkk wax ndaxte faaw ñu wax ko mu doon riwóor yoo xam ni mhm. Euh, yàgg nañ koo dégg. muy mhm. benn seetkat bu newoon Sénégal fii. di mhm. seetkat bu mag bu jigéen. Mhm. Euh, bu daan joxe ay verdict ci làmb ji. Euh, xam <laughs> bu daan joxe daan joxe ay verdict ci làmb ji ba dem nañ ba ni combat Yékini ak Balla Gaye yaa yaa ko daan yaa newoon ci ginnaaw yaa ko daan jox victoire xam ma <laughs> wax sama xarit la sama yaay la sama goro la mm. ndax euh, yaayam ak sama jabar ñoo bokkoon ndey ak baay maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare muy gor muy gor ma taxaw nag xam nga wax ne golo bu bu bu lekkee olof na ko gëlëme cooy mhm. man bu mu jógee daara ji rek mhm. dañ maa indi yëmbal mhm. te lañ ma indi yëmbal ñoom ñoom ñoom bokk nañ ci kon damay wax ne moom moom moom ñooy sama ñooy sama maître aji bi comme ñooy sama maître nag <laughs> <laughs> maa ngi seenu taalibe ñoom di yàlla ndax sa goro la daal ah? mooy sa maître ndax sa goro la. waaw mooy sa waaw mooy moo ma jàngal. ndax sa goro la moo ma jàngal xam-xam moo ma jàngal seet moo ma jàngal lu bëree bëree bëree yoo xam si <laughs> macha allah. yal na yàlla jàmmal ko. Mhm. d' accord donc euh, ba tey jii Axma dañuy desandi ak euh, sëriñ bi. Mhm. Euh, ci wàll wi nga xam ne nii moom mooy ci li mu mëne bokk na ci comme ni ñu ko waxee li si xaar maanaam. noo ko prononcé noonu la <laughs> listixaar listixaar waaw waaw mooy xoolal nit ñi seen avenir uh-huh. donc Euh, bokk na ci aussi ñaan mhm. maanaam bindal nit lu mu sangoo walla lu mu takk mhm. ngir mu jóge ci yàlla te comme ni ko sëñ bi waxee moom nee na lépp luy ay jinneek yeneen boolewu ko ci mbiram gëmu ko mhm. li muy def moom mooy alxuraanul karim bi lu jógewul ci euh, téere yàlla bi du ko laal te du ci ñaan donc euh, bari na ci ñoo xam ne nii aussi ci sama euh, téléphone ñu ngi réagir mais mm-hmm. réaction yi gën a vif euh, mooy ngeen woote ci le 77 659 12 97. 77 659 12 97. wala ngeen woote ci 77 020 58 17 77 020. 58 17 boo leen ko dee xoor euh, mu ngi ci euh, bar de l'écran bi maanaam écritel la euh, ñu bind ci Serigne Mame Abdou Karim Touré. Mhm. mi nga xam ne nii moom ngeen janoo tey képp ku ko woo moom Ahmad dina la décroché. Mhm. moom mu mën laa seetal wala sax mu wax la li nga xam ne moom nga moom nga bëgg a xollu ci sa ëllëg mhm. donc comme ni ma ko waxee ma bamtu ba tey tur yi képp koo xam ne ni yaa ngi woote ci sama téléphone wala nga ci message wooteel ci numéro yii moo gën euh, mooy euh, le 77 659 12 97 ku ci woote di nga mën a jokkook moom en direct wala sax bu ñu paree émission bi nga mën a jokkook moom 77 659 12 97 wala le 77 020 58 17 77 020 58 17 donc ku woote rek Axma mën nga ko décrocher euh, daal di koy nuyu bàyyi ko ak sëriñ bi Euh, moo xam mu joxe turam ak mu bañ a joxe turam yëpp képp ku woote rek mën nga ko décrocher. Uh-huh. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa yaa ngi en direct euh, ci DKR 221. Mm-hmm. Mm-hmm. yokk ko haut-parleur ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. Ah, yaa ngi ci DKR 221 en direct. waaw euh, maa bëgg waaw sëñ Abdou mu ah, ngi en direct nii ndax ci kanam kon woote. asalaamaaleykum. waaw mi ngi en direct nii teel. waaw ah, man la sëñ sax. waaw baax na ne kon ci kanam nga woote incha allah. jërëjëf. aja mi ngi noonu moom ñàkkul ni xam naa ni ndeysaan. Mm-hmm, eh, waaw wax ci. Mm-hmm. mënut wax ci xam naa incha allah mënut wax ci danga après war ci kanam. waaw noppee rek incha allah. Eh, képp koo xam ne ni rek mënoo wax ci kaw. Euh, bëggoo wax ci kaw mën ngaa woote ci suuf après ci numéro yii ñu teg ci écran bi. Euh, képp koo xam ne tam bëgg ngaa woote ci kaw mën nga woote ci 77 659 12 97 77 659 12 97 wala ngeen woote rek ci 77 020 58 17 donc dama lay bàyyi ax ma yow ak sëriñ bi ngeen wéetaat euh, mhm. bu baax a baax ndax dégg naa fi euh, léegi nii yu ma xamul mooy ay asxaar lasxaar <laughs> <laughs> aji Touré Touré yaram fi ñuy jëkkee waat fi ñuy tàmbalee waat waxtaan bi mm-hmm. mooy sànq fi nga xamee ni rek xawoon nañ fa te mooy euh, wàllum faj mm-hmm. waaw xam nga ñaan bokkut ak ba tey faj. Eh, nit mën na sëriñ mën na dem jàngi xam-xam di ñaan. waaye taxu koo mën a faj waaye lii dañuy gis ni en général euh, le fekk nga dem jàngi xam-xam ñëw mën a ñaan yàlla may la loolu. mu yàgg nga tàmbali ci dugal ay faj. ba di joxe ay sunguf ak ñoom kii ba loolu mën na indil problème. ak ki nga xam ni moo doon sàkku ci si yow. Euh, ab ab wér. ba mujj ba nga mujj ko jural euh, kii loolu it il faut ñu wax ci. waaw xam nga day am comme ni nga ko waxee léegi mi ngi seet nit mën naa seet te mënta ñaan mm-hmm. nit mën na ñaan te mënta seet mm-hmm. loolu loolu loolu loolu dafay am mm-hmm. te faj ak ñaan bokkuñu mm-hmm. ñaan danga ko jàng xam ko doon ko mu nekk ci yow faj nag mooy ki nga xam si ne tey indi ñëw na jël appartement def lépp yaa ngi dégg ñëw publier di commencé di faj te fekk na boobu mënu ko de yaa dégg kon loolu dafa nekk loo xam ne si ne dafa wuute mm-hmm. te nit ñi xamuñu ko fi jàpp nañ nañu nag ku mën a faj rek ku mën a ñaan rek mën ngaa faj mm-hmm. yow mi sa jëm bopp mën ngaa ñaan yàlla mm-hmm. corom yi mën na julli ba set jàpp ba set julli tàllal yàlla loxoom ñaan ko yàlla moo ñaan leen ma may leen ay sant leen yi ma dolli leen ay dégg kon noonu lay demee ci ki mën a faj ak ki mën a ñaan dañoo bokkut mu mel ne nit ki nga jàng ba pare def médecine mën a faj kee jàng doon avocat mën a layal comme médecine bi ki mën a faj nekk docteur est-ce que mën naa layal ka nekk tribunal ba mu ba mu gañe procès mënu ko dangay dégg waaye bu nit amee cardiologue wala nit am cancer wala nit am jabet bu ñëwee mën na ko faj mm-hmm. loolu la jàng mm-hmm. loolu la xam dangay mm-hmm. dégg avocat bi mën na maa rey nit baa ma sàcc mu ñëw ma ma lay lay lay lay lay ba jox ba kooku am dëgg ba la ma waroon tëdd peen ba du ko tëdd foofu la mën a faj ak mën a ñaan ci misaal ndax temps bi guddut nii nii nii nii nii nii lañ wuutee kon mën a faj ak mën a ñaan dafa bokkut ñaan nag man ko ijaaba yàlla da koy nekkal mu nekkal la waaw man kaana lillaahi kaana laahu lahu mhm. yaa nekk suñu borom rek suñu borom nekkal waaw waaye nekk ci lu ma neex di def lu ma neex am lu ma neex yàlla may ko ko yàlla bind. la ko wax. waaw daan naan ku def lu neex daje. waaw waaw ku def lu neex rek daje lu neex. Mm-hmm. mooy ci la waxaat ne sëñ Saliou yàlla ñaari biir la bind. Mm-hmm. ñaari biir. Mm-hmm. biiru nit ak biiru doomu aadama. nit biir bi la yàlla bindal sàkku la gimin ala kulli alin chaque jour yàlla dana jox loo ci def. waaye biir bàmmeel loo jëf doo ko fekk. kon yàlla it loo ko lébalut wala loo jëfut suñ borom du la ci fekk si. da ngay jëfal yàlla nekkal yàlla wéetal ko tawasulu suñ borom mu fekk si la ak mm-hmm. aku màggam mm-hmm. aku baaxam mm-hmm. sa jëf jii nga xam si moom la yàlla may ci sa doole ji nga lebal ko yàlla muy benn yàlla fay la ci jëfam fukk ndax yàlla mu ëpp ñëpp doole te yàlla ku mu fayal nga xam ne fay na la <laughs> kon loolu euh, dañu wutee di di rappeler di euh, di rappeler ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel que ni ñaan na dara ci lu wàcc ak lu wàccagul it. waaw ñaan mën na dara ji. ci lu wàcc ba noppi ak lu wàccagul. yàlla mën na ko. waaw ñaan mën na ko. ñaan dina ñaan dina fekk lu exegut. ñaan mhm.